acca salaamaaleykum mbokku internet yi seetaan seen site internet Ngoy TV ñu siyaar leen bëggewaat leen bu baax a baax tey nag dañoo fas yéene ñaw ak yéen li nga xamante ni kii di Modou am na ko ak ki nga xamante ni moo di Baye Ndiaye muy trophée 2024 euh, 2025 ñun ñuy nekk ay doomu Bawol dëkk Bawol di tiitaroo Bawol ñu ne pourquoi duñu xool mbër yi nga xamante ni ci saison bi op nañ ci ay combat dek Bawol ñu jël ko ci suñuy naq ak ci Ngoy TV ñu teral leen incha allahu rabbu wuutal leen ay trophée jox leen ko biñ ko waxee nag ci 200 pour cent Bawol bi ñu ne léegi xalaat leen bay naa leen diir pendant cinq ou six jours ñu ciy xalaat ba yala suñu borom def ñu trouver solution solution bi nag biñ ko trouvé suñu xel yëpp dafa dem ci xele boobu nga xamante nii moo di fils de BM fils de BM muy xele boo xamante ne nii dafa dugg si rek def ay jaloore dafa dugg si rek daan ay moroomam damay ti wax ci benn combat tuuti rek ci combat am digganteem ak ki nga xam ne moo di Ajuma Lawbe combat boobu bi ma déggee ñu ne fils de BM dafa jël Ajuma Lawbe dama ne woon hii booy bi warul dugg foofu mais ba mu ñëwee bere ba mu fa bere macha allah ba yàlla suñu borom may ko ci ndam mu dellusiwaat encore dem Réfane amaat fa combat ñëwaat Dakar am fi ñetti combat yàlla suñu borom def muy cinq combat yoo xam ne ci saison bi daan na ko kon kooku yaakaar naa mérito na leneen lu dul trophée bu ñu amoon leneen itam dañ koy def mais suñu doole fii la yemagul comme dañ koy doog a commencé incha allahu rabi déwén ñaan nañ yàlla suñu borom mu doon lu ëpp trophée incha allahu rabi. Euh, dinaa ñëw nag li tax ñu def ko keneen ki muy ki nga xam ne nii mooy Sa ñu koy wax Sa bu ngàngu nay voilà mu ngi noonu muy Sa di xele nekk itam koo xam ne day bëre ci lutte simple di bëre ci lutte ak frappe léegi bi ñu demee itam boo war xool ki ñuy jël ci lutte simple bi ñu xool ne Sa def na ci douze finaal douze final def na ko ci perte ñaari yi gagné yi kon kooku itam kenn genn koy mën a yeyoo ñu euh, jox la trophée euh, ñu ngi ci doon xaar ñoom Pape Ngom ak ñoom Petit Reug Reug bu Ngoy ak euh, yeneeni ndaanaan ah yeneen i samp yooyu dëkk Bawol ñu ngi leen fa daan doon xaar mais biñ ñu waxee ne Sa bu ngàngu nay def na dix final gagné. dix final perte de wax dëgg fa yàlla kooku itam yé yeyoo na tey ñu jox ko li nga xam ne moo di trophée bi kon daal euh, ñaari mber yi la ñu tànn gum la ñu tànn gum pour jox leen li nga xam ne moo di trophée Ngoy TV euh, Bawol incha allahu rabbi trophée deux cent pour sa Bawol sax laa koy tuddee ndax du ma wax Ngoy TV rek ndax su ma waxee Ngoy TV day mel ni Ngoy TV rek moo ci ne àddunaa ci nekk bawol moo ci nekk incha allahu rabi euh, fii ak lundi euh, dinaa tey la ajuma fii ak lëndi incha allahu rabi dinaa ci jublu defar trophée bi euh, woo leen ngeen wax nankeen ko bëggee ñu defaleele ko noonu fas yéene naa ci itam ànd ak site internet bu nekk surtout ñu dëkk bawol sit internet yi maa ngi ciy woo waa Refane TV première maa ngi leen ciy woo waa Refane TV Mbomboy TV Bambey 24 ñoom ñëpp képp bépp internet bu nekk Bawol boog effectivement bii nii nga gis ci sa bopp rek sama numéro 77 la 522 83 42 77 522 83 42 ngeen yónnee ma seeni logo ñu defaale ko sax ci ci li nga xam ne moo di doon mooy doon euh, trophée bi yéen ñëpp ngeen ñëw ñu euh, séddal suñu xolu mbër yi incha allahu rabbi xam ne déwén. bu ko yàlla suñu borom tuddee dañ koy gën a yaatal ñu gën ko defar daal ah ba mu gën a rafet ginnaaw loolu itam ñu ngi ciy ànd ak suñu grand Badajon Badajon ñu ngi ko ciy xaar bu baax a baax a baax envoyé naa ko message wax naa ko ni ma bëggee wax naa ko itam li ma nare mais incha allah xam naa dina ma tontu. Euh, grand Mbaye Diouf itam noonu suñu gara Sàllo itam noonu lépp nag ñu ngi koy def ci ndigalu Moustapha waaw muy Siyaada Bawol muy. kooku kenn gënu koo mérito xam naa même bu ko jëloon sax même bu doon jël na ko ah leer na ma leer yàlla ne dina ko wax xele yi bay naa ko ak xele yi ndax am na loo xamante nii mooy loolu daal bëgguma cee xuus mais tout cas mu ngi noonu euh, comme li ma doon wax sànq nag defuñu ko ngir dara ay ñoom fils de Kati ñu ngi lay félicité bu baax a baax xele boobu fils de Kati ñu ngi lay félicité di la encouragé euh, ñu ngi doon xalaat sax digganteem ak ki nga xam ne moo di fils de em mais bi ñu xalaatee ne fils de kat yi def naa ama trois combats kee def cinq combats ñu ne ah ki def cinq combats bi nag nañ ko ko jox mais beneen yoon incha allahu rabbi bu fekkente ne saison bii di ñëw fils de kat yi moo moo moo jiitu ñu ñu jox ko ko loolu du dara ñun ñëpp benn lañ te leer na ma ne fils de kat yi buñ ko ko buñ ko joxee fils de em ak fils de kat yi benn la rek ñun ñëpp bawol la ñuy xeexal bawol lañu fi nekkal comprendre nga kon yaakaar naa ne amul benn problème euh, li tax ñu def ko nag du dara. pour cent euh, pour cent bawal boobu nga xam ne dañ ko taxawal mu doon loo xamante ni incha allahu rabi euh, dañ koo bëgg a yëkkati dañ koo bëgg a jëmal ba ci kaw kenn ku ne gis ci sa bopp ndax boo demee pikin am nañu 200 pour cent nga dem parcelle am nañu 200 nga dem géejooy am nañu 200 nga dem caaroy am nañu 200 pour cent 200 di doog judu ken kenn ku nekk rek loo mon def ko bul xaar loo mon def ko toy tàggoo toy wax ak ñi nga xam ne itam ñoo ñu feete kaw ñuy suñuy njiit ku mel ni ñoom Gara Badajon duñ leen fàtte waaw ndax lépp lu ñuy bëgg di def itam dañoo bëgg di déggoo ak ñoom dañoo bëgg itam di waxtaan ak ñoom saa su ne loolu la ñu waxoon ne incha allahu rabbi dinañ ko waxtaan ak yéen euh, def ko itam vidéo boo xam ne incha allahu rabbi lii la ñu fas yéene fas yéene nañ ko def ay trophée yu rafeta ah. incha allah bu ko suñu yàlla suñu borom mën loo fas nañ ko def ay trophée yu rafet ba mu yu daq sax yi Modou yu am ak li Baye Ndiaye am yëpp incha allah yemuñu ci pro mbër yëpp ah dina ñëw ci promoteur yi mais moment bi ñu toll nii daal dañoo bëgg a jékku euh, demagul ci mbër yi defagul ak ñoom waxtaan inshallah rabbi bo ci kanam après ñu doga dem nag ci écrit yi xool ñaata écrit ñoo op ay combat ñaata écrit ñoo op ay ndam loolu yëpp inshallah rabbi ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy xool te inshallah rabbi gem naa kan yàlla suñu borom dinañ ci jàppale ba ñu am ci lu weesu ñu njort manan leen gaay mu ngi noonu suñu bëgg bëgg la suñu mebef teef la ci bawal euh, yàlla nañ yàlla suñu borom may kattan ak mën-mën ba lépp lu ñu suum rek yàlla suñu borom jàpp lañu ba ñu motale ko ci barke yonente bi jaajëf bëgg naa ci yéen. asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen waa Ngoy yéen waa àdduna. képp koo xamante ne ni abonné ko rek dawal si Ngoy TV nga dem abonné nga mën di seetaan lu ñu mën di dugal nga dem seetaan ko incha allah. Ngoye TV c'est meilleur ñu leen di ziar di la ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen.